Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le Sénégal 4 TV asalaamaaleykum mbokki internet yu Sénégal 4 TV ñu ngi leen di nuyu di leen jaare te itam di jox kenn ku ci nekk ci yenn sa wàccuwaay euh, di am naqar ak tiis euh, di leen yëgal rek euh, beneen cas boo xamante ni ni nemmeeku waat nañu ko fële ca diwaanu Thiès plus précisément di quartier bu ñuy wax Médina Fall dendandoo lool ak fi nga xamante ni ni fi la ñaaw teef bi am ay bis yi ñu génn xewoon Eh, di kaawu kii ñuy wax Marème Diagne mi nga xam ne dañu ko boomoon ay bisee ñu génn eh, fi mu toll nii nag am beneen lim boo xam ne dollee ko waat na ci ñuy soxna suñuy wax Khady Diouf xadi Diouf ay atam toll ci fukki at ak ñent japp fukki at ak juroom xadi Diouf demb ci guddi le réeroon ay mbokam ñu ci biñu ay 21 h jotee manam 9 h ci guddi ñu diko wër diko wër diko wër ba mujj gi ay côté 1 h du matin ci lañuy soga gis li di koram kor bi nak ñi ngi ko gisé fele ci côté hôpital bi ñuy tuddé dalal xel di fi nga xamanteni fofé lañuy fajé ñi nga xamni dañu am ak wéredi ci wàllu wàllu xel euh, yëf yi nag xaw jaaxle indi ci semé pagaay euh, daanaka tey foo sànni mbàtt mu takk euh, daanaka foofee nga xamante ni moo di diwaanu Medina Fall naqar lañu lañu lañu xëyee tey naqar bu bu bu méttee métti sax mbooloo mu takkoo takkoo takkoo jóge fu nekk ci biir réew mi ñëw fa ngir soutenir famille bi ànd ak ñoom tamit ci tiis ak naqar wi nga xamante ne nii nekk na ci ñoom mu nekk nag ay question yu bëree bëri yoo xamante ne nii euh, nit ñi ñu ngi koy samp di ay laaj yoo xam ne ba léegi amaguñ ci ay tontu euh, ndax euh, kii di Khady Diouf xamuñu ba xam dafa xaru wala boog dañu ko dañu ko faat loolu ay question la yoo xamante ne nii ça toujours un mystère ci li nga xamante ne nii moom moo xew foofule waaye bu ñu sukkandikoo ci ay kàddu yi ki nga xamante ne nii moo di mag la ci moom moom dëggal na effectivement wax ni faat faatu gi moom am na ndax moom dem na sax ba ca hôpital ba nga xamante ne ni foofee la koor ba nekk euh, ba ñu ubbil ko ko mu daal di koy xool euh, waaye jàngat bi nga xamante ne nii moom lañ ci def mooy que ni Eh, kii di Khady juuf amul benn tras buy wane ni dañu ko faat maanaam du trasu rendi rendi du tamit trasu euh, loo xamante ne nii jam-jam la wala lu ni mel donc même bu fekkee ni tamit dañu ko faat xëy na euh, dafay nekk loo xamante ne nii xëy na faat la boo xam ni autopsie rek moo ko mën a leeral waaye li ci doywaar ba gën ci doywaar mooy que ni kii di Khady juuf nga xam ne ay atam ci fukki at ak ñeent jàpp fukki at ak juróom la toll dañu wax ni dafa nekkoon en état de grossesse donc euh, foofu tamit dañu fay defaat rek benn analyse bu ndaw euh, avant que ñuy continuer ci information yi mooy euh, daanaka ñaari cas yu nekk ci benn koñ ndax ñi nga xamante ne nii ñoo dëkk tey ci tey biir Thiès te faral a miin diwaanu Médina Fall daanaka bu ñu la waxee fii nga xamante ne nii situation géographiquement fii kii di Marème Diagne dëkk ak côté bitigu Cheikh Ibrahima Fall da ngay gis ni daanaka diggante bi matul cent cinquante donc diggante bu matul cent mètres ci benn koñ eh, ci lu matul huit jours daanaka tey mooy huitième jour ki nga xamante ne ni moo di Marème Marème jaañ wala boog le neuvième jour ñu gisaat fa beneen kaawu wu juuf Diouf amaat foofu encore te ñoom ñaar ñëpp di ay jigéen ñoom ñaar ñëpp di ay ndaw ñoom ñaar ñëpp tamit nekkoon en état de grossesse la question la boo xamante ne nii faaw mu sampe fa foofee tamit dañu fay daal di daal di signaler li nga xamante ne ni moo di manque de sécurité boo xam ne nag commencé nañ ko seetlu foofee ci diwaanu Médina Fall ndax damay wax toujours ma ni Médina Fall ci ci géographiquement dëkk bi dafa màgg ci benn xeetu màggaay boo xamante ne nii dafa yéem ñëpp ndax à l' espace de cinq maximum dix ans dëkk bi daanaka mën nañu wax ni dafa triplé wu. ndax ñun ñi nga xamante ne nii yàlla dogal na ñu cees Thiès euh, Medina Fall dañu lay wax ni la boo mësaan a romb kër terrain Baye Mass mooy ki nga xamante ne nii moo di way juru Marème boo mësaan a romb këram dox benn 100 rek yaa ngi dugg ci àll bi àll boobu noonu da nga ko daan continuer bay fëllaat génn dem pour euh, dugg biir kër Issa léegi ngeen gis ni Medina Fall ak kër Issa taqaloo ñu daanaka nekk nañu benn waaye màggaan nag ci côté ndeyjoor màgg ci côté càmmoñ te dëkk nag buy màgg ala kulli xaalin aadama ya fay yeewoo dañu màgg parce que dëkk buy màgg ay kër a koy màggal te kër ya nga xam ni moom la ñu fay tabax dëkk ba di màgg ay doomi aadama ñoo fay ñëw dafa dëkk si kon nag bu dëkk màggee euh, ñi nga xamante ni ñoo di nit ña fay yeewoo màgg dafay jaatu yi dafay jaatu yi itam nag ñu yokk sécurité bi bu baax a baax a baax donc côté boobu xëy na dañ ci insister waat rek di ci ñaan suñu gouvernement gouvernement bi di ci ñaan itam ñi nga xam ni ñoom ñoo di ay autorité te nekk foofee ci diwaanu Thiès nañu nañu nañu yokk sécurité bi parce que fi mu toll nii moom euh, Medina Fall mbooleem ku fay yeewoo wala nga am mbokk bu fay yeewoo sa fit dala dalaw dalul fi mu toll nii dalatul beneen bi ci des nag tax ñu bëgg ci def taxaw seetlu mooy ku dëkk Medina Fall plus précisément bitik Ibrahima Fall ndax bitik bu siiw la biir Medina Fall foo taxaw boo nee bitik Ibrahima Fall ñu yóbbu la fa bu fa nit dëkkee réer ay mbokkam ay côté vingt et ñu di ko wër ba gis kooram côté hôpital dalal xel ku nekk xam na ni nag lu waay waxadi waxadi xam ni diggante kër euh, gi ñuy wax euh, Medina Fall. côté Ibrahima bitik Ibrahima Fall ak dalal xel diggante la boo xamante ne nii sori na lool ani moo ko fa yóbbu ba tax ñu faat ko ah daxam foofee lañu ko faate ndax dañu ko faat ba pare yóbbu ko sànnee ko foofu loolu xam naa ni enquête bi nga xamante ne nii moo koy gën a mën a leeral loolu ci loxoy yoon la nekk waaye daal di leen xamal ne rek équipe boobu Sénégal 4 TV fi mu toll nii ña nga fa euh, daanaka mbokk yi nga xamante ni ñoo jege sës rëkk ci kii di Khady juuf euh, dañoo nangoogu la wax euh, voilà nangooguñu wax ndax itam nag ñi ngi ci naqar ñi ngi ci tiis suba ba léegi ñi ngi insister di insister waat waaye kenn ci ñoom nangoogul wax kenn képp moo ci nangoo wax mooy ki nga xamante ne modi di eh, mag mom la ci mom mom mo nangu nangu nangu addu ci yoy le kaddu waye tamit mom ay kaddom dafa wax ni rek de manam ni nu ko yegge ñun mom tamit noné la ko yegge eh, donc mom dem na sax ba hôpital mom mo deugal effectivement ni faatu gi mom amna nak lan moko faat ba xam dañu ko faat ba xam dafa xaru ndax walu ëmb ak yu ni mel yooyu yépp ay question la yo xamanteni ni ça reste toujours un mystère mais rek di leen wax ni équipe Sénégal 4 TV fa lepp lo xamanteni ni rek inshallah rabbi fa ni ay xibaar daañu leen ko jottale ci site bi ngeen xamante ni ci ngeen tànn di fi teew lool li nga xam ne mooy xibaar yi xew fii ci biir réew mi ak sax ya xew ci bitim réew ak lepp lu ci mënti xew dal ñi ngi ñi ngi ñi ngi mastawu fami bi di di mastawu ñi nga xamanteni ñom ñoo di fami hadi Diouf euh, di di di ñaan rek yalla suñu borom leeral yëf yi d' abord parce que fim tol ni euh, xeyna en première lien li ñuy ñaan moy suñu borom leeral ko ndax buñu xamé ba xam dafa xaru wala ñu xam ba xam dañu ko faat ak itam kan moko faat xeyna su boba après dinañu ci yenen yi nga xamanteni ni mo ci des inshallah Allah rabbi suba am nañ ci ay élément yo xamanteni ni déjà euh, dinañ ko dinañ ko defar ci guddigi comme ça suba ci kàttanu borom bi ñu dëgtal leen ko waaye tamit mbooleem loo xamante ne nii rek information la ngeen bëgg ko ci xam bu ngeen ko kale fii ci TV incha allahu rabbi dara du leen ci ëmp ci kàttanu borom bi ndax itam dafa bokk ci suñuy mission di leen di leen di leen indil xibaar donte ni xibaar bu naqari lay doon bu neex lay doon ala kulli lu ci mënti xew ñu daal di koy euh, daal di leen koy dëgtal ngeen xam li nga xamante ne noonee la demee muy semé muy li nga xamante ne nii fi mu toll nii xew na diwaanu Medina Fall ñu seetlu ko fa semaine bi daanaka daal askan wa yëpp kenn tëddatul nelaw ba yandoor kenn fitam dalatul fi mu toll nii askan wa tiit nañu askan wa jaaxle nañu ba tax ñu ngay daw di yuuxu wàllu kon daal na ko autorités yi dégg waaye tamit ñi nga xamante ne nii ñoo ci mën dara nañu ci jéem a def dara bu ko defee Médina Fall daal di mën a delluwaat ci li nga xamante ne moo di tranquillité daal di mën a delluwaat ci li nga xamante ne nii moo di calme ñi ngi tuubaat bu baax a baax a baax tey jéggalu ci kàddu yi bu fekkee ne am na ci lenn loo xam ne wax nañ ko ci mu dëng ngeen jéggal ñu ko te xam ne ki sunu matadi la ak sunu gàtt xam-xam waaye lépp loo xamante ne ni wax nañ ko ci rek muy ak njub ngeen bi la ñu ngi leen di jéggaluwaat bu a baax encore une fois ñi nga xamante ne ni ay cœur sensible lañu ba bu ñu déggee genre xibaar yu mel ni mu métti leen mbaa mu naqari leen ñi ngi ciy tuub di ci jéggalu bu baax a baax a baax jox leen information bi rek ngeen xam ko lañ ci jublu woon waaye tamit àndandoo ak yéen ngir dëgtal leen mbooleem loo xamante ne nii rek xew na fa ak fépp ci biir Sénégal loolu mooy itte saa su nekk donc servir leen donc dox jaamu seeni soxla loolu mooy suñu ittee ñun waa Sénégal 4 TV di leen jéggaluwaat bu baax a baax a baax te itam di leen jox dig dañuy ëllëg incha allahu rabbi ci yeneen i détails ci yeneen yu gën a leer asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. TV numéro Sénégal 4 TV 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever.